la délibération du juge, moi, je l'écoutais religieusement et je prenais note. Mais ce qui me peine, c'est que le juge n'a pas fini, n'est-ce pas, de lire son délibéré. Parce qu'à un moment donné, la salle a réagi et a fait montre, n'est-ce pas, euh, de, signes de désapprobation par rapport à la décision qui a été rendue. Alors, vous savez, euh, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que les décisions sont censées être rendues au nom du peuple sénégalais. Et lorsque le peuple sénégalais désapprouve et manifeste sa désapprobation, vous voyez que cela pose problème. Vous faites que ne tey jii kenn gisul koo xam ne dañu nekk la ñu tuumaa Khalifa Babacar Sall dégg nga ci kawam la dal ndax nee nañ état bi amul lu mu fiy def la muy laaj yëpp et que la mu laaj yëpp dàq nañ ko que état bi nekkul ci dëgg dégg nga te état bi ñoom ñoo porté woon plainte constitué wu partie civile ba pare ne que dañoo luubal seen ñu ne koppar ñu ne dañ koy luubal état bi wanewul mu ngi ci kon bok lu tax ñu condamné ko li tax ñu condamné ko lu la di bu mënul wax ña ñu delloo leen seen alal parce que mënuñu jiiñ mënuñu tiim ne que kii la ñu luubal kopparam moom lañ ko war a jox ñu dem ci mairie bi ne que mairie bi amul sañ-sañu ñëw wax parce que yoon ba mu war a jaar pour ñëw wax jaaru ci et que bu dee koppar yi ñuy wax koppar ya ca mairie ba la jógee kon foofu it bëgguñu leeral mbir li tax bëgguñu ko leeral c'est parce que mairie bi ci boppam dafa nekk man kenn luubarul sama fifteen man amul dara lu may ñaxtu ci xalifa Ababacar lu jëblu ci xalifa Ababacar Sall lu dul liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey na ko fi ak liggéeyal askan wi kon boog foofu su fekkee ne ko condamné nañ ko yaa ngi déglu te koppar yi seeni borom nee nañ ko ñoom laajuñu dara parce que seen dara manqué wul et que seen dara luubaluñu ko ñu tëj ko juróomi at loolu dafa tekki ne que ñoom la ñu leen soxal moom moo di juróomi atu kaso parce que alal jooju waxuñu nañ ko delloo kenn waxuñu ne nañ ko delloo mairie waxuñu ne nañ ko delloo nan la tuddati état bi kon leer na leen ko dara luubul léegi nag juróomi atu kaso yi loolu lan la leen war a mën a jëriñ lam leen mën a jëriñ rek moom moo di que képp koo xam ne que ci alalu buur dañu nekk da nga ko ne dongeet wala da nga koo luubal wala da cee def caay-caay manam do yon dak na nga am sañ-sañ pour wara mëna nek candidat té ñëpp xam nañ ne Khalifa Sall la ko fi japp pour mu baña nek candidat la légui nak lan na ci kanam raw li bët ndax fi ak élection yi soreetul xëy fukki weer lay doon wala juroom ñenti weer légui nak bu yëf jaar na yoon gis nañ fay atté ñu am na ño xamné ñu ngi kaso depuis ay juroomi at ay fukki at te kenn attewu leen wala attewaatu leen ñu xool ndax la nga xam ne que tàmbali woon nañ ko fi ci koo xam ne moom it candidat la bëggoon nekk ndax loolu it dinañ ko ci mën a gisaat ci doxalin bi nga xam ne que dinañ ko doxal ci dossier Khalifa Babacar Sall moom moo di délai délai moom moo di diir yi nit ñi am pour ñu atte seeni wax dégg nga ndax diir yooyu dinañ ko respecté wala duñ ko respecté ndax bu fekkee ne dañ koy respecté dina jafe lool ñu mën a àgg foo xam ne que yoon dina dëggal ne que Khalifa Sall du mën a nekk candidat kon tey ji ne sénégalais yi xaar ne que mbir mi dina métti ji ndax calendrier lañ yor calendrier boobu moom moo tax ba nga xamee ne tey ji tribunal mënuloon daje parce que greffier yi dañoo grève ñu jël ab gendarme waat ko def ko greffier par force mu nekk greffier parce que parce que délai là, dire la loi bi may loi bi may wante bu que gis nañ ne yu saa yuñ ko saa ko musan def fay indi ay ak ay ci ñinga xamné atté nañ leen yaangi parce que une décision du mës a génn ndax ne joxé duñ ko nango joxé ndax ñom ñoy greffier yi yaangi bu def cela veut dire que bion yoon dinañ wuti li tax dañ koy wut pour mu mën a méngoog maanaam ak dàkkadante ko ak seen calendrier politique bi nga xam ne moom la am mais li ñu waree def moom moo di ñun li nga xam ne moom mooy suñu warugal ñun xalifa jëluñu pour ñu ñëw plaideel ko rek wala ñu ñëw men ni statut ci kanamu juge daf ñu jël pour que ñu mën ko xelal mën ko gunge mën ko jàppale yaa ngi déglu ba mën a wasaale dëgg bi ba mu génn kaso kon tant que génnul ñun nous, liggéey jeexul kon léegi xeex bi day continuer parce que am na yoon yoo ne nañ ci jaar dina xool dëgg bi wax dëgg bi yaa ngi bu ne que bi aussi maanaam réew mi Sénégal tey dafa ay yeneeni te dafa am ay sañ-sañ daf ko signé ak yeneen i réew kon sañ-sañ yeeg ak yooyu nga xam ne ko signé na ko bu ko respecté wul bu boobaa am nañu droit génne mbir mi Sénégal yóbbu ko ci ay kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo koy atte te yooyu yit gis nañ fi nemmeeku nañ fi ay ak ay yelef yoo xam ne que maanaam Sénégal jalgati na ko alors que dafa signé jël engagement ne que da koy respecté ci réewam kon kuréel yi nga xam ne que ñoom ñoo ko war a saytu foofu dinañ fa dem. kon loolu day wane ne que maanaam xeex bi day door